mu ci tàggat yaram njàng ak njàngale wala sax ci musique Pikine yàgg wane xar kanamam naam nag ci loole am leneen luñ ci sof. insécurité bi moom vraiment foo ko natt rek yegg na boo yaakaaree ne boo jëlee def ci mbuus mucc ragal saak ragal pochette ñuy ko fi mbuus foo jëm. boo génnee boo nee ginnaaw raay laa jëm taximaan boo ko wax daan la déedéet parce que ñàkk sécurité moo ko waral. di guddi di bëccëg ñu bari nag yenn waxtu yi dañu ragal a génn. événement nag bu ñëwee moom. da koy xalaat sax ba mu yegg si loo teg ñu jël foo jëm doo ñemee guddee léegi nag bu fekkee événement ñëw na soorul jaay ba mu guddi looy jaay. bala nga koo xam am na fi ay ruq yoo xam ne dooy na waar ay guincement na fay nekk te euh, lumière bi doyul. te sa diggante kër ak sa place diggante maanaam dangay avance jot sa kër. ñàkk sécurité moo waral booy dem sax nga ne xale bu góor wala nga woote ne xale bu góor kaay yóbbu ma sama kër. daal di joxoñ baaraama tuuma ndaw ña fa yeewoo moo di ñàkk xam. bu fajar 6 heures du matin jotee da ngay gis mag ak xale ñëpp ay jéggi raay bi dem uti lu ñu am kon ginnaaw ay jàmbaar a fi nekk dëkk bi lu mu métti métti métti métti mais gars yi ñu ngi ànd ak seen ngor di muñ di moytu xam nga mais am na ñoo xamante ne dañuy jóge ailleurs ñëw fii ñoom dañuy def naka su dul noonu. mu mel ni nag lañ fa jëmal ay police yu yees euh, tax na xel daal di dal as tuut. mars bii rek tey lu bari moo fi amoon mais boobu police ñëwee boo koy dégg benn nga koy dégg koñ bi wala nga dégg ko koñ bële. ngir gën a ñoŋal seeni i kaaraange yi jaaykat nag ñi nga xamante ne bëgguñu seen kanam feeñ dañoo daal di jël ay gardien. chaque weer dañuy fay gardien ñu ngi koy fay 3000. am nañu ay gardien mais xam nga tam marché bu fekkee doxul. gardien du ba doo mën a jël gardien yi duñu mën a jël gardien yu bari. ñàkkum yëg kaaraange du li nga xamante ne nag Pikine rek la daal di am bokk na ci li nga xamante ne nag moo ko jur. bu ñu sukkandikoo ci ñu waxtaanal moo di ñàkkum xëy. rasul jeunesse bi lay waxal góor góorgóorlu te yàlla moo tax ñu jéem a góorlu jàppale suñuy wéjur wéjur yi dañoo sonn ñun nag ñoo war a jël relève bi jéem leen dimbali loo moomul nga xamante ne moomoo ko.